demandé la, il y a un seul mot d'ordre libérer Ousmane Sonko injustement arrêté ñu jàpp ko ci loo xam ne du yoon moom ak Aliou Sané ak détenu politique yëpp yaakaar nañ ne Macky Sall bu gisee lii ak liy ñëw ci kanam mobilisation yi war dégg li nga xam ne moom la askanu Sénégal askanu Sénégal laaj pour ñu bàyyi Ousmane Sonko loolu daal mu ñëw bokk ci élection mën naa ko papa am ñoo xam ne ñii daf leen di jaaxal lu tax may ànd ak moom parce que maa Ousmane Sonko ñoo bokk école bi ñu génne école nationale d'administration et de magistrature ma di commissaire aux enquêtes économiques ma def 33 ans dans l'administration def ans de pouvoir 26 ans d'opposition ñu pouvoir ma dégg Ousmane Sonko yëkkati loxoom ne moom def na 15 à 20 ans impôts domaine kenn mosu koo jiiñ mu taxal mu taxal dërëmu Sénégal. ma ne xale bii daal maag moom ñoo bokk principe maag moom ñoo bokk valeur ndaxte man. def naa 33 ans administration nekk ci buntu xaalis def naa 10 ans pouvoir ana ko mos a war mën a wax fii ne Habib Sy taxal na dërëmu Sénégal. kon kooku damay koy reflet ci moom. lii nga xam ne teg nañ ko ko dafay jeex ala kulli aal Macky Sall dana ko bàyyi ala kulli aal Ousmane Sonko sera au pouvoir en ala kulli al projet bi dana taxaw 2024 moo tax may wax xale yi jël gaal yi découragé bu ñu dem parce que projet bi dana taxaw 2024 te ñoom ñëpp danañ ci gis seen bopp libérer Ousmane Sonko libérer Aliou Sané libérer tous les détenus félicitations Amnesty International Amnesty International félicitations Y'en Félicitations.